kan ngay waxal man comme daan jaar hmm. lay jaar. man rek. en tout cas daal bu bàyyi dara. dara du achète cher. Hmm. Hmm. damay bàyyi ma dem. defal ko quoi. genre mu nuyu ko. xam nga man ko yaawute bi. waaw man boobu laay may yow xam nga ni man damaa polyvalente. lépp laay def rek laay déglu léegi yow. defal sa ni nga def sa baax na. waaw waaw bàyyi man sa ginnaaw. thank you

katanya Rafit tega puga ini nana mau cibul yuk yuk yuk puja so mas nggak paham hmm? kan, deh Brema lima toh mau tuh fake mau sih mau hol nih kan mel tara jom ini dekat kalau barangnya ada nih eh bàyyi ko ma dem ñun kàpp yi la ñuy wax. loolu mooy kii jënd moo ko xam nga ne lii jënd moo ko wax. wàccal gaaw wan ma. fi mu ne nii sama yàmbaa ngi nii. te bu ma xool yow gaawee ma rek. gaawee ma rek. waaw. xoolal photo bi. yow lii moom ba léegi dama ko def ba pare tiit. te damaa xam ne yow kat lii moom ah. ci formation nga jaar wala. dañ ma kaa jëli photo rek laay def. lii de bés bu génnee fii ci Sénégal. dootu fi jar si dara. bés bu mag la. waaw. bés bu mag la. baax na.

mënoo bàyyi sama concentré woo rek loo def déconcentré ma man turu na fi laa bañ a dégg na lan la ma waxoon caga duma ko fàtte ba keroog may sàngoo suuf tam nag maa ngi koy waajal benn affaire boo xam ne su ma ko yéegee ba wàcc ko àdduna dootu ko doyati dara man maa la wax loolu ee eh, ma ma la jànk daanu nga tey daanu nga tey sama yaram yow ak lu ma ma wax la ak sa classe yow ah bul xool sa bopp kese boole ma ci. Sera yow di ngay xeex. wuy ma ba mu ba nga ma xamee ba léegi mës nga maa gis may xeex wala may xuloo. ah moo ma ci jaaxal. voilà man li may def bu ma ko defee dama koy def ci calme mooy que ni bal du tàkk coow du am te bu ma paree na fi dee moo koy gën a waaye lépp ci classe. man ngay wax man classe. waa andi 皆さん